chers collègues tout d'abord euh, maa ngi ministre yëpp mais di nuyu aussi euh, euh, mon ami mon frère monsieur Aliou di la remercier encore maa ngi fàttaliku marché bu mu lakkee da nga ñëw ànd ak ñun ci xeex bi jàppale ñu ba tey ji maa ngi lay wax ni marché bi ñu ngi koy tabax donc kon li nga am tombé ko tombeek avion yëpp sa ay laam yàlla na la ko sunu borom def muy sa muur te leneen mu ngi sañu kanam député wax nañ ko li ma bëggoon wax léegi mooy ñun li ma bëgg a leeral tourisme bi euh, day ni léegi tourisme religieux culturel artisanal yooyu dañ fa war a doxal Sénégal gëm naa ko ndax gëm naa ñun de lu ñu am rek moom rek buñ ci jàppoon lu bari mën a dox Sénégal mooy sëñ Touba li mu liggéey li mu bind am li mu liggéey Rasulullah ak li mu defar rek suñ ko matérialisé woon liggéey ko xalaat ko ni ñu ko war a xalaatee

jo moom it mu tabax ba mu taxawal fa armeel ya nga xam ne mu ne fii tey ñu fi xëy denc la bu ngoonee nga fanaan àjjana kuñ fi fanaan denc bu ngoonee nga fanaan àjjana loolu njaareem rek la am ay eh, boo xoolee aussi tamit loolu mu liggéey ko fa liggéey fa penc boobu yooyu yëpp ba pare xam naa ne kon tey circuit touristique surtout euh, kii nu ko tourisme religieux war nañ ko def Jurbel parce que circuit bi ma nga fa maam Cheikh Ibra Fall ma nga fa fotom bobé ci kër Cheikh la nek ci Màkka Lew-Lew kon ñun Jurbel foog naa lu ñu war a am pour mëna jaay Jurbel pour mëna jaay tourisme religieux bi Jurbel mu ngi fi parce que il est grand temps vraiment nag ñu orienté waat suñu politique ci côté bobu nga xamni ne Sénégal tubaab yi ñëwuñu fi pour leneen day fa pour découvrir la nga xamni ne amul fi woon te sëñ Touba mom rek war na mën doy ci ñu mëna découvrir la la y a le tourisme artisanal qui est là Diourbel a plus de 3000 artisans ni ñi liggéey yépp vraiment touristes yi war nañ ko mën a gis boo jëlee kaaw ceeb ca Bambey ka fa nekk la muy liggéey rek kooku rek mën na indi ay touristes y'a la culture aussi bu nekk Diourbel lu am solo la boo xoolee bàmmeelu ma Cheikh Anta Diop mu ngi Diourbel tubaab bu mën nañ ko découvrir mais yooyu il faut ñu valoriser ko monsieur le ministre ñu mën ci liggéey mais ci biir loolu ñun tooguñu xaar créé naa taxaw na office du tourisme jël naa ay ñu am xam-xam ñu retraité Ablaye laay ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk fa di liggéey ak ñoom jiili créé na aussi euh, euh, école hôtellerie aussi créer nañ ko fa pour que bu paré ñu wara a mën ñu ñëpp ñu liggéey actuellement ñu ngi tabax benn hôtel avec 112 chambres ak 4 suites présidentielles pour que bu paré ñoo ñëpp touristes di ñëw ñu mën ca liggéey hôtel bi ñu ngi koy liggéey actuellement mu ngi fofu Diourbel aussi région centre la sorul fenn kon Diourbel nak presque bo xolé dafa néew doolé fan yi presque lu bari amu fo usine ba na wara doxé doxul il est grand temps ñu may ko chance am nag te sëñ Touba nak sëñ chance la ndax liggéey na la nga xam nak ñun Diourbel war na ci mën avancer pour dila ñaan ministre vraiment bo fexé mën nañ ci waxtaan je crois même fuñ ko résidence bi ko tey won sëñ Touba 15 ans ba nga fa tey mën nañ ko def musée ñepp ah, ñëpp diko découvrir diko diko xol bo ba mu attirer ay touristes à travers le monde Diourbel mën avancer ñun daal am nañ sëñ Touba te sëñ Touba jàpp naan tourisme religieux bi ak màggal Touba ak yooyu yëpp bu ñu ko defee foog naa Jurbel ak liggéey bu ñu ko liggéey bu ñu ci jàppee je pense bien que eh, touristes nañu war a mën a ñëw te tourisme religieux bi nañ ci insister lu am solo la ndax loolu am nañ ko te ñu mën a jaay sëñ Touba à travers le